léeg li sang di def nag sëriñ kese kese du ko mën waaw léeg-léeg li sang di def sëriñ kese kese du ko mën moo tax ceddo yee mënoon sëriñ kese kese yi waaw sang yi rek la ceddo yu mënul woon waaw waaye sëriñ kese kese fu ko ceddo masaan fekk sakkal ko pexe dara la ci mënul waaw ndax dañu am na dammel boo xam ni at mu jot ba yónnee ci kaw kër sëriñ si xar mu ñu baax la mu jël fas bu mu baax la mu jël malaanu tënn bu ñu baax la mu jël sëriñ si gisee nag ne ah, nan ci sakk ñu daal waxtaan yee ñu baax la yëpp nëbbi ko wuti fuñ ko nëbb foo xam ne dammel bu doon wër àdduna juróom-ñaar du ko xam mu ne ah ñi mu yónni ñëpp ni ko sëriñ si daa ren amuñu dara mu ne am nañu dañ ko nëbb <laughs> ñu ni ko am ah. indi fu ne wër nañ fu mu ne dañ ko nëbb maa leen ko waaye dana feeñ te ñu xam ne maa leen man fexe leen ba tàgge ma waaw mu ni fexe leen ba tàgge ma bu ñu ñëwee nag tëréw leen ma ci wanag wi te ngeen jooy jooylu rekk génn dem bàyyi leen fi ñoom rek ah ñu def noonu ñu dem tàggi sëriñ si ñëw nag tabarkal la buur a ngi tëdd rek ne ñu ngi ko sànge malaanu cooli i jékki mu ni fexe leen ba tàgg ma bu ñu ñëwee nag tëral leen ma ci wanag wi te ngeen jooy jooylu rekk génn dem bàyyi leen fi ñoom rekk ñu def noonu ñu dem tàgg fii si ñëw nag tabarkal la buur ñu tëdd rek ni pat ñu ngi ko sànge malaanu cawli ñu jékki-jékki ni ko ah, moor moo na nga def fay ko maa ngi fi mu ni ko ah, kaccoor bii de foogoon na ni bëccëgu tey bi du dikk mu mu ne ko kii de foogoon na ni mbëcc gu tey bi du ñëw sëriñ ndaw ni ko man de moo teg kii fas waa mu ne ko mun ko bu bu rafet ba mu ne ko mu ne ko man ko duñ ko moor cama mun ci dundal piir <laughs> mu ni ko ah mu ni ko mu ni ko noonu nga def mu ni ko mu ni ko siñ ma seen nag moom na mu def mu ni ko sama sàq ma mu ni ko mu ni ko ma nga bëndiitu kër moranta mu ni ko fële ko nëbb ci génn guy goo xam ni su law doon wuti ba dett du xam fu mu ne ñooy suñ moo awa nag mu ne ah man sama malaan yi timm ya. mu ne ah, mu ko man ko dégg soxla su baax soo xam ci mu ko xam ko mu fay mu mu ko nga lañu wax ba rek dal di fudd cëtt sëriñ sa fax sax mu ne ah tey ngeen xam ne dangeen di muus muus lu waaye muusu leen dal di yónnee ñu jëli fas yaag dugub yaag malaanu tënn yëpp indi mu ne waaw kay ab sëriñ bëgg gën a muus caddo du sotti فتحنا